salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xamante ni yéen a ñuy déglu dañuy seetaan si seen seen Dakar Midi TV saa sune ñu leen di bégal euh, di leen jox li nga xamante nii yéen moom ngeen moom ngeen bëgg saa su ne ñoo leen ko jox. tey nag dañoo defoon benn doxantu fii ci HLM Patte d'Oie euh, seet si fi benn ndaanaan benn maestro boo xamante ne nii tey bëri na lu baax ci suñu musique Sénégal ci loxom la jaar. bari na loo xamante ni neex na mu koy dégg ci musique Sénégal ci loxoom la jaar bari na ay ndaanaan yoo xamante ne ni Sénégal xam nañ leen ci loxoom lañ jaar mu nekkal fi artistes di enregistrer artistes yi di jaarale yoon artistes seen wàllu musique bi ñu nekk mu yore fi nag studio bu mag euh, nekk ku baax tamit ku yàlla baaxal tey ñu defoon suñu doxantu seet si ko fii nii fekk ko fii ci këram fekk ci studio bi mu nekk ko xamante ni kenn du ko présenté réew mi euh, dañ koy bàyyi rek mu nuyoo présenté boppam mu wax leen mooy kan grand bi nuyu nañ la. Euh, maa ngi lay fay di leen nuyu di leen sant euh, maa ngi kontaan ci xam mënoo mu wax parce que dama yàgg nekk ci ginnaaw musuma waaw dama yàgg nekk ci ginnaaw musuma génn parce que dama naan sama image amul solo mais sama liggéey moo solo. Mhm. parce que moo tax sama toujours sama liggéey laay laay focus. boobu ku ma xam xam sax sama photo sax du ma ko dugal esthétique. parce que toujours damay concentre wu sama liggéey. l'essentiel mhm. chaque fois buy même ndaw yi ñëw sax di def musique di jàng musique sax chaque fois dama leen accompagner di leen di bëli loolu euh, loolu dafa yàgg ci man du tey parce que ba may daw ba léegi dama nekk si da bëgg musique yàgg si nekk ay ay grand yoo xam ne si musique lañ leen xame lu si mel ni Numukunda ay Baabulay ay Jabel Bakka Adama dem si yàlla si Kawanding yooyu ñëpp dam leen yàgg di top parce que avant sax may def musique dam leen daan topp di téye seen kora ma yàgg si nag nekk si nag ma ne wàllu technique yàgg ma neex moo tax dama démarré si si xumbal yeeg si kii di gàddu matériel di kii daan gàddu baaful affaire yooyu noonu ci yooyu laa tàmbalee ba ba ni may defee képp koo xam ne mu ngi si musique rek jot naa liggéey ak yow amul waaw waaw amul amul ku ma liggéeyul si yow à part yenn grand yi ak yenn kii mais ñu ngay gis fii ñu si bari liggéey naa ak ñoom waaw mooy ñi mooy ñi fi nekk nii actuellement nii. waaw ñu si bëri liggéey li jot naa liggéey ak ñoom. maam ci ban ci façon liggéey bokk seen label wala. non bokkuma ci seen staff bi wala wala wala wala boog ñoom euh, nekk seen manager wala boog di job ak ñoom ci wàllu son. non nekkuma ci nekkuma seen manager. mais des fois liggéey moo ñuy boole. def son. ok wala ma def. sa soirée ma ñëw def son wala affaire yooyu loolu moo may booleeg euh, ñu may liggéey ñu si bëri mais terew ñoo xam ne dañuy ñëw di liggéey ci fii mm-hmm. toujours même ndaw yi di ñëw fii di liggéey fii si bu ñuy répété sax dama leen jox ay conseil ma ne nii damay defaa damay dugg seen direction musicale sax ma ne ah boo mënee def lii wala boo munee gën a jàngaat lii chaque fois dama leen ñuy accompagner si loolu ñëwuñu sax liggéey rek dem répété rek dem des fois damay ñëw dugg man leen seen musique bi boo leen ko defoon nii wala boo leen ko defoon nii dina baax parce que man chaque fois damay déglu grand yi grand yi laay déglu. mais mais jàngoo musique. man jànguma musique. jànguma musique mais at à tout léegi ni ma nekk nii ak tubaab bi ma nekkal nii. Mm-hmm. maa ngi comprendre lu bëri ci musique parce que dafa ñu koy jàngal. mais ñun duñu ay musiciens mais ay techniciens lañ mais technicien foog nga foog nga xam musique. waaw te musicien dafa war a da nga war a xam musique boobu bu jàng musique même boo jéewul sax. Mhm. nit des fois musicien day jouer sax jouer lu baaxul sax jouer fausse note. nga ne ko ah li nga jouer de daf fausse note la. wala mu ñëw mu def mise en place yoo xam ne baaxul yow mi technicien sax yow yaa ko da nga koy corriger. parce que chaque fois da ngay corriger ay ay musiciens. Mhm. chaque fois da ngay corriger musiciens yi. Mhm. léegi ñu bëggoon a xam rek euh, ñu fi jot a jaaragum. ci ay artistes. ñu fi jot a jàpp ci ay artistes. waay maanaam yow da nga leen produire wala boog ñoom dañoo ñëw répété ba seen son kale ñu dem beneen studio enregistré foofu génne wala boog studio bi day day day day am répétition am am enregistrement son. xam nga am am arrangement. non studio bi studio bi euh, studio hip hop studio hip hop moo ko taxoon ni jóg. show hip moo ko taxoon a jóg. Mm. fii mbalax bu ñu fi ndëkk a def. Mm. man maa jël sama sama responsabilité bopp. Mm-hmm. woo ay musiciens yu mag. ku ci mel ni Cheikh mu defal ma benn composition bi ma jox euh, Mami Kanouté. Mm. ma woo ay ay Ngand woo fi ay Ibou mbay woo fi Mangone batteur. Mm-hmm. woo fi Seydou. Mm-hmm. Seydou guitariste. woo fi Abou Sala. ñu defal ma benn production boo xam ne man maa jëloon sama engagement. def ko fii. Hmm. mais fii ku ne xam ne fii studio hip hop la ñuy def parce que damay joob ak benn tubaab bu ñu naan euh, Fred. Hmm. moom day former fii ay xale. boo gisee sax am na ay xale yoo xam ne dañ leen ñu former xale yu am onze ans xam naa. Euh, li nga li nga ñëw léegi sax moo tax fekkoo leen fekk na joob nañ ba dem. am ñu fi jaar ñu bëri ah. dañuy woy fii ñu fi jaar bëri na ah. hmm. daara ji daf fi daf fii daf fi ñëw di job daara ji famille Euh, Amira ñëw na fi Amira bu muy njëkk a def cours voix fii la ko doon defee benn ñekk lañ ko boole loon bi ko doon defal euh, cours moom jaar na fi fi ñu fi jaar bëri na ah. waaw ah. ñu fi jaar bëri na ok bëri na trop ok léegi léegi ñu bëgg a ñëw tuuti rek ci li nga xamante ne nii moo ñu gën a intéressé mooy suñu musique Sénégal bi euh, parce que musique bi dafa yàqu ñu koy kaas bëri ñuy wax na musique bi léegi baaxatul bari ñii ne faute bi euh, ci borom la ñii ne faute bi ñiy enregistré son yi ñoo xamul musique wala ñoo maîtriser wul musique waay xam li ma wax ñii ne faute bi tamit artistes yi ñoo xamul lu ñu war a woy wala boog ñoom ñoo jàngul musique ñoom ñuy woy ñii tamit ne instruments yi nga xamante ni ñoom ñi koy yor di ko joué ñoom tamit ñoo xamul musique ñoo jàngul musique te tey suñu waxtaanee tey. waay ci wàllu musique. waay musique ku ne xam na ne li ko ëmb dafa bari. waay guitariste bi. waay batterie bi. waay percu bi. waay tama bi. waay kii woy kii kër. waay technicien bi nga xamante ne nii moo nekk ci studio bi. waay tey ñun ñëpp ñoo seq musique bi. waay te tey yoon la tey ñoo ñu seq musique bi ku ci ne. da war a jàng musique. xam musique maîtrise musique. xam doo mi fa sol la. waaw mais léegi ma ma loolu ñun léegi loolu dañ ko euh, loolu dañ lu ñu xam la léegi. Mhm. moo tax ñun boo fekkoon xale yi di ñëw di jàng fii. Mhm. dañ leen di tegal tableau. dañuy jàng kon nu ñuy jàng école dañ leen di tegal tableau. Mhm. dañuy bind. tey jii mooy waral tey jii nii boo taseeg benn étranger boo xam ne soxlawul sax ngay répété moom da lay tegal ay partition partition yi la lay tegal rek. yow da ngay ñëw lire partition yi nga joué si parce que ñu xale yi ñu yor loolu lañ leen jàngal. Mm-hmm. parce que ñu bool c'est que luy erreur bi mm-hmm. da ngay juddu kër ngéwal tey ji nga juddu rek gars yi dem tànn biir ñu tegal la benn clavier euh, clavier kii euh, amateur. Mm-hmm. parce que yow li ngay joué. yow rythme rythme bi gars yi di joué moo xam ceebu jën la moo xam dagañ la moo xam baara mbay la parce que yow ni nga koy déggee rek noonu waaw noonu nga koy joué yow da ngay am problème mu accord problème accord ñun nag xale yi fi nekk ni ay géwél lañu mais dañoo dindi loolu si ñoom ñu lañ jàngal maanaam ñu lañ jàngal note tey ci xale bu ci gën a ndaw boo ko laajee ree moom automatiquement da koy day day plaqué nga nga nga laaj ko sol mu automatiquement day plaqué mais tey jii nii yenn xale yu ngéwél yi nekk ci kër géwél yi yu de commencé jeu tànnibéer boole leen laajee note dañ koy seet parce que duñ ko xamuñu ko. parce que ñoom rythme rythme euh, tànnibéer yi la ñuy jàngee clavier. moo waral looloo nekk ci musique mais ñuy def musique ba léegi ñu ngi def musique. ok musique moom ñu koy def ñu ngi koy def. ok léegi euh, mais des na tuuti dinañ manqué musicien rek. waaw ah bon. waaye dinañ manqué mission bi. dinañ ko manqué Sénégal dañ koy manqué de. lu waral loolu. non parce que ñu jàngu. parce que boo ñag yi ñooy gérer ñag yi ñooy relever ñoom ñooy gérer. Mm-hmm. boo xool ba boo xoolee ba ci mbalax yi bees yi ngay dégg nii. moom mm-hmm. moo di ko génne. Mm-hmm. Euh, Pape Diouf ko génne Waly di ko génne. da ngay jàpp ni ay sénégalais reko koy gérer étranger yi fi nekk nii ñag yi ñoo koy gérer ñoo koy gérer. seen biir quoi am am na am na ñu la. ñegi ñoo musicalement ñegi ñoo koy jouer. boo fi génnee fii cinq clavis. waaw ñoom ah, ñooy ñooy ñooy trois ay trois clavis sax du cinq dafa bëri trois clavis mais li nga fiy gis nii muy neex sa nopp. Mhm. mu nekk mbalax. Mhm. ñegi harmonie harmoniement ñegi ñoo koy jouer ah. ma bëgg la tamit ci booy fi ne. parce que am na fi boo yoo xamante ni fii la ñuy ñëw di répété. waay suñuy pare soirée. waay ak suñuy pare album. waay wala ñuy pare single. waay dañ fiy jaar di def répétition. waay léegi ci biir répétition yooyu. waay bëri na parce que du ma lim artiste grand yoo fi kese parce que nekkul artiste grand yoo fi kese ñoo fi ñëw waay n'est-ce pas a fi ñëw voilà ñëpp fi ñëw xam nga mu nekk studio bu mag studio boo xam nga ñëpp a fi jaar bu ne dafay ñëw waay di ñëpp fi jaar mais tey grand yof gii nga xamante ni yow fi nga dëkk waay dafa am lu gars yi di wax waay dañ ne grand yof amul artiste grand yof amul ay woykat grand yof maanaam amul sax studio te tey studio bi ñu ñëw fii digg grand yof la grand yof léegi dañu bëgg moom mu wax ñu moom ndax Grand Yoff am na ay artistes wala amul artiste nga sital ni ñaata artistes ñoo fi ne non am na ci ay boo yoo xam ne ñu ngi dañuy góorgóorlu mhm. bëgg nañu parce que ñu ngi def effort xam nit nit bi taxawal groupe rek yaa ngi def effort pour nga taxawal dara mhm. mais lenn mooy manqué rek lenn direction mooy manqué ok day fekk ay groupe yoo xam ne ñëpp ay xale lañu mhm. si mbedd bi lañ jàngee musique Mm-hmm. ñoom lu ñuy dégg rek loolu la ñuy loolu la ñuy joué lu ñu dégg loolu la ñuy kii mais tey jii bu amee ay bon musicien yi leen yi leen yi euh, leen utal direction dañuy dañuy dem seen yoon parce am na ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ñu ngi takkale ñu ngi def du monter groupe parce que parce que ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi def effort tooguñu tëri nelaw mais ñu ngi def effort problème direction la ñu am waaw mais ñu ngi def ñu ngi góor góorlu parce que loolu loolu tamit mooy mooy premier solo bi nit buy jug di def effort rek mu ngi def effort léegi nag direction mooy des. waaw. Hmm. parce que fii artiste muy waykat waykat bu bëgg a dem foog nga am un bon instrumentiste boo xam ne dalay lay liggéeyloo di la travail loo di nit yow waykat da war a mën a xam sax gaam da nga mën a yow da nga war a mën a xam accord war nga mën a teg nga ne nga war nga mën a teg nga ne musicien bi mhm. tegal ma ree mhm. ree wala parce que am na waykat am na waykat yoo xam ne ñoom soxlawul sax dañuy ñëw ñoom automatiquement ñoom ñooy wax euh, musicien bi tegal ma gambi jàppal ma gambi waaw jàppal mais day fekk ñu travaillé ko man des bu ma gisee benn waykat boo xam ne damay xam ne am na am na baat yàlla may na ko baat dama naan ko demal nga demal nga kii ut benn professeur mu jàngal wala nga am benn instrumentiste mu jàngal. ok Youssou boo gisee nii boo gisee mu mun a way trop dafa amoon benn instrumentiste boo xam ne da daan fanaan ak moom. moom Youssou Ndour Youssou da daan fanaan ak Habib ñu bokk benn néeg Habib Faye di ko wayloo di ko wayloo fu sori parce que moom kor cordophone moo mun a wayloo kii mais saa ni groupe yi. tëkkat sabar yi ñooy patron yi. ci ci booy yi. waaw ah, tëkkat sabar yi ci booy yi léegi groupe lii groupe yi ngay gis nii. tëkkat sabar yi ñoom ñooy def mise en place yi ñoom ñooy arranger musique bi. ok te ñoom jànguñu ko ñoom. Ah, yi te du ñoom ñoo war a arranger musique bi. musique yi musique yi ñoo ko war a arranger. waaw ci ci instrumentiste moo ko war a defar moo ko war a arrangé. mais ñoom tamit est jàng nañ ko ba ba benn tëkkat sabar ñëw fay war leen a wax ñoom. ñu non mais léegi tëkkat sabar yi ñooy boo xoolee ci groupe bi sax tëkkat sabar yi ñooy mujjee ñëw. yi sax ñooy mujjee ñëw parce que ñoom ñooy star yi fu ñu demee ba tëkkat sabar yi nekk euh, patron yi rek mooy waral musique bi si rythme rek lay nekk. waaw rythme rek mooy lay nekk. mais est ce que nekkul tamit artistes tamit ñoo bëgg lool. non mais parce que instant bii boo boo xoolee boo xoolee ligne bi même ligne bi la ñëpp ñoo bokk lu ñuy joué. ñoo bokk façon ambiance. affaire yi bokk façon way. bokk façon air non musique bokk façon ay ay ay jooy. no musique musique mun musique mun na am rythme. mun na am rythme kenn kenn waxul mun am rythme mais ay harmonie. dafa ah, bokk ci musique. te dañ ko ci soxla. dafa bokk ci musique ah. te waykat. ki koy defar instrumentiste moo koy defar. instrumentiste moo moo koy woyloo. moo tax man chaque fois man bu may def son sax damay favorisé harmonie. mais mais point boobu nga laal. waaw xam nga da wax harmonie. mais bëri na ay woykat yoo xam ne soo leen laajoon moo harmonie. waay ñoom mënuñ la wax lan mooy harmonie. ci ci ci musique. waay harmonie. Euh, xam nga ñoom bëgguma bëgguma sax wax parce que bëri na ndaanaan yoo xam ne bëgg naa leen a dalal ñu wax ñu lan mooy harmonie parce que mélodie bi nga wax ak harmonie bi problème bi mooy booy dañoo maîtriser wul. non booy boy jàppal ma jàppal ma fan rek la wax jàppal ma fan. te pourtant vent boobu noonu. non xam nga ay ay ay li nekk ci clavier xam nga ñun du ñu ay musiciens ñun ay mm-hmm. techniciens lañu. Mm-hmm. mais au moins sax ñun dinañu am ay écoute. Mm-hmm. ñun du ñu musiciens. te am na loo xam ne musicien moo la ko mën a moo la ko mën a détaillé lépp. maanaam instrumentiste. moo la mën a détaillé lépp. mais man toujours damay concentré wu ci instrumentiste yi di jàng ci ñoom lu bëri. moo tax fépp fu ñuy defee ay prise enregistrement ak affaire yooyu damay déglu instrumentiste yi. des fois ma ñëw fekk projet jàmbur moo ñëw joxe ci sama idée instrumentif bi day daf may daf may nangul sama idée def ko te man du ma musicien des fois da ngay gis nit koo xam ne du musicien du dara mais day toog am idée am tant que tant que ak musicien mi ngi partager rek toujours da ngay am lu am qualité. Mm-hmm. waaye qualité yow mi toog ni sax mu nga am sa idée mu nga am mm-hmm. sa idée. newul yow musicien bi rek yow yaa musicien hmm. nii nga ne doo musicien doo dara mais mu nga sa idée si li ñuy defar hmm. nga joxe sa xalaat tey way yi ngay gis nii balax yi carton ay rappeurs koy bind ah bon ay rappeurs ay rappeurs ñooy bind mbalax yi ngay dégg nii mooy mooy yu xew nii ay rappeurs ñoo koy bind mbalax lu mu saf-saf ay rappeurs koy bind mais kon est-ce non ay rappeurs ñooy bind moo tax non ñi am parole. parce que rab dafa am euh, euh, musique am. parce que léegi boo gisee des fois dañ ne rap bi sax léegi dañ ne rap bi Samba Mbayaan. non déet rap bi da nga amul. est que nekkul rapport yi non mise en place déet ñu ñu bëgg dara. waykat yu bëgg dara. Mhm. dañu ñu bëgg a am loo xam ne bind la. Mhm. ay wax yu leer la. Mhm. rappeur moo koy bind. ok. mais du du ñëpp du ñëpp la rappeur di bindal. rappeurs yi quelques quelques artistes yu fi nekk la ñuy bindal baxaw day liggéey ak ay nit am na benn gaan bu ñuy wax euh, kuruma xaw ma ndax xaw ma xam ñu bëri xamuñu ko. kuruma. mos Pape Diouf am na ay morceaux ay titres yoo xam ne kuruma moo koy bind Superman Love moo bind. moom kuruma moom la. ah yi xamuñu ko. day liggéey ak xuman di liggéey ak safari di liggéey ak. Euh, ju bëri ah. moom Kourouma moom. waaw day liggéey ak Amira di liggéey Jaamaan day liggéey ñëpp moom bind mooy affaire Baxaw mi ngi mu ngi liggéey ak ngi liggéey ak day liggéey ak Viviane. ok kon daal kon daal rapport ñu ngi ci mbalax bi ñoom. non rapport yi non rapport yi dañoo yàgg nekk ci mbalax. saf nañ ci saf. dañ ci mës a yàgg nekk. mais ñu comprendre waykat yi comprendre ñoom ñooy liggéey ak ñoom. ñi bëgg seen affaire neex wala. waaykat dégloo waaykat yu comprendre laa la yàgg nañoo liggéey ak mbalax maan ay yàgg na liggéey ak Youssou Ndour garçon rappeur. ah bon waaw na keneen te damay fàtte tur bi euh, benn rappeur bi kii ay da rappeur ko dama yàgg na liggéey ak Youssou Ndour gars yi ñu comprendre laa wax rek bu bëgg a comprendre mooy mooy mooy liggéey ak mooy liggéey ak mbalax ah, mooy liggéey rapport yi. waaykat bu bëgg comprendre. mooy liggéey rapport waaw ok léegi ma bëggoon a laaj ma bëggoon la laaj tuuti rek waaw ma bëggoon laaj euh, nga sitel ma cinq waykat wala cinq waykat wala dix waykat. waay ça ci yow. mooy ci ñi fi nekk en top ni actuellement mooy single niveau yi single yi mu jee génn maanaam lan nga ciy critiquer. lan moo ci baax ak ak ak ak ak ak ak ak ak lan lan lan moo ci bon maam luñ luñ ci war a defar ak ci war a changé. teg affaire yi direction côté côté côté choix la côté choix la euh, musique choix am na ñoo xam ne dañuy génneel sax lu lu loo jàpp ni baaxul sax nit ñi bëgg ko moo tax lu nit bëgg rek tey jii boo ne ko boo ne baaxul moo indi nga problème. yow boo toogee sa bopp yow da xam ne lii mix yi baaxul euh, mastering bi baaxul balaa nga koy xam ngay play booy play son da ngay gis mu am différence da ngay gis mu am différence. mais léegi la ma doo doo sañ wax ne baaxul. non c'est que du question doo doo wax ni baaxul. mais tey jii. parce que euh, critique boobu noonu tey mooy tax yi mun a xoolaat fii moom mooy critique xam nga gars yi dañoo basé wu dañoo basé si gars rek. waaw pourtant am ay booy ay booy yoo xam ne yow doo leen gis booy yu tàng yoo xam ne dañoo mën a way ab ki ci euh, ay Obri dafa mën a way. lan la moom lan la Obri moomu lan rapport la wala wala. jasmaan la wala wala wala mbalaxmaan la. du mbalaxmaan day woy variété. day woy variété. sénégalais la sénégalais day woy am na am na si Adams am na si As the Best am na si yooyu. waaw mais mais mais loolu lépp naa. sax mu ngi commencé changé léegi naajo léegi mu ngi musicalement léegi naajo mu ngi commencé changé parce que mu ngi commencé mu ngi xam fu mu fu mu baatam fu mu toll ak léegi. di wàcc gars di ko gars yi di ko wàccee muy muy way léegi naajo léegi mi ngi maa ngi gis naajo mi ngi commencé mi ngi commencé waaw mi ngi commencé comprendre hmm. waaw mi ngi commencé comprendre par rapport ak fu ñu doon fu ñu doon bi muy am muy am problème way mais léegi ñu ngi wàcc affaire bi mi ngi mi ngi feey waaw léegi mi ngi commencé comprendre par rapport ak avant mais booy mais mais booy à part naajo kan nga xalaat ne ci yeneen booy ñoom ñoo ngi ñoo ngi góorgóorlu daal ñoo ngi ñoo ngi wéy lu nit mën a dé mën a mën a mën a dégg. Sidi woy trop ku am talent la. Diop ku am talent ku am faci ku am ku ci way la mais bu amoon direction rek. bu bu amoon direction rek comprendre rek. Sidi amu ko. mais amul amul direction. mais ku amul direction nga bëgg a wax. amul direction mais ku mën a way la. Sidi Diop déglu mais ku mën a way fii ku fi ñi fi nekk yëpp mën naa ne gisuma ku fi daa ko way. moom Sidi ñëwee ci Tarba Mbaye ñoom El Hadj Keita. waaw moom kii mais c'est que Sidi si dafa am lu kenn amul li am moom la Titi am. li mu am moom la Titi am. mooy mooy. Sidi bu la fekkee sa musique sax day nekk à l'aise bu la fekkee bu la ñëwee seet sax day nekk ah, à l'aise waaw mais direction direction rek moo moo des tuuti waaw. ok léegi léegi léegi lan lan lan nga mun a ñaax mooy ñu nekk ci showbiz bi parce que tamit showbiz bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. waay. yow mi yaa ngi ci showbiz. waay. caméraman bi mu ngi ci showbiz. waay man noonu keneen ak keneen noonu. mais tey dafa bëri ñun lu ñuy lu ñuy lu ñuy yàqante suñu biir. te pourtant ñunu neen xam nga li ma wax léegi yow su fekkee ne yow am nga ñaari moo ba ñett. non loolu loolu sànni. loolu loolu loolu mbalax bi la nga am. am na am na ci rapport yi non c'est que rappeurs yi ñoom pour man rappeurs ñoo gën a franc. non loolu. parce que ba pare ñoom ñoom seen sax. mbalax ñoo dinaa la maa ne sax amul ay saagante nday amul. non loolu loolu dafa valable loolu dafa valable ci rap. mais rappeurs yi mun nañu. Ah, classé non loolu mun nañu classante. saagante nday. ka du saaga du ka rappeurs yi. Ah, non saaga moom valable. non xaaral rappeurs yi mën nañu bokk sedd. rappeurs yi mën nañ bokk seen. waaw rappeurs yi rek ngay gis ñuy classante bokk seen. yow mbala tey ji mbalax maa ni koo ñeme koo ñeme gélo kii euh, première partie kii gélo kii deuxième partie dañuy moytante dañuy moyt dañuy moyt ñu def duo sax problème la mbalax maan mm-hmm. xanaa góor ak jigéen ñoo def duo góor ak jigéen mais nga gis ñaari góor ñaari góor yoo am am kii da daf euh, daf diw non bëriwul ci mbalax. bëriwul quoi. non bëriwul ci mbalaxmaan parce que dañ ku si nekk da ngay moytu sa morom. amoon na avant ci boo ko seetaanee ci ñoom Youssou Ndour Ndiaga Mbaye. ñoom Thione Seck ñoom ñoom Omar Pène ñoom Ismaïla Lô xam nga ba ci Alioune Mbaye Nder. la xamoo yooyu daan am quoi. xamoo ñi fi nekk nii. xamoo Lamzo jamono ñaata personne ñoo fa nekkoon tool way Lamzo jamono. bëri ku ci jox sa morom mu mu way ba pare ku ci nekk ñëw aw sa morom. way kii day way bu pare kii ñëw way plus de six waykat dinañ daje maanaam six wala sept même scène même scène même orchestre même orchestre six waykat mais tey jii nii ban ban booy ña ñu ñan du ñu kii du ñu laalante duñ <laughs> nangu sax daje <laughs> <laughs> maanaam duñ nangu sax daje maa dangu daje sax duñ ko def. Mhm. mais rappeur loolu rappeur loolu du dara dafa am public am rappeur am seen public balaa nga koy xam da ngay gis benn rappeur boo xam ne yow yow sa bopp doo xam da ngay jékki-jékki gis ko fenn mu mu mu mu fees dell nga naan ñii ñii fa ñii fa lañ jaar parce que rappeur ñuy dund rap ñu ngi dund rap dañoo am seen public mhm. bopp rappeur dañoo am seen public bopp fii bëri na fii non rappeur dañoo am seen public bop te doo dégg de. Mhm. doo dégg. Mhm. mais sama gars yi nii mbalax bi daal yi muy mooy loolu quoi. léegi léegi moo tax mooy motu. Euh, parce que ñoo ngi ci cappaandaw émission bi euh, ñu jéem a joxe ñaari moom pour ci suñu Grand Yoff. parce que ku ne xam na ne Grand Yoff maanaam tur biñ leen mbubb biñ leen solal. dafa dafa dafa doy waar du ma ne dafa hmm. ñaaw mais dafa doy waar. loolu euh, loolu li fi nga bëgg jëm sax xam naa fa. waaw parce que. côté côté public. gis dama la ñuy jox benn conseil. waaw gis nga ku bëgg a gagné ku bëgg a yenn marché yi yaral sa public. du mu tur ay tur sax mais am na ay yoo xam ne dëkkuñu fi. est-ce que gars yi mën nañoo non ndax am xam ne non dëkkuñu fi sax artistes yoo xam ne génnee nañu ay son yoo xam ne dafay def it. mais pour ñu jouer yenn programme yi pour ñu jouer yenn affaires yi pour ñu jouer yenn kii yenn événement problème la. parce que yenn entreprise yi duñ leen ñeme. Ah. parce que toujours gars yi ñu ngi xool say public. Ah. boo gisee tey jii nii euh, moom débat nekk di mën a di mën a jouer yenn yenn événement si yenn hôtel yeeg affaire yi. Pape di ko def ba tey. Mhm. Sidi sax commencé la ko def. Mhm. mais est gis nga yeneen gars yi man mii nekk ci hôtel yi di wër hmm. pour ma gis leen ñuy jouer sax problème parce que gars yi ragal seen i public toujours gars yi nañu yar nañu bàyyi xel seen public nañu yar seen public. gis sa public. dina ñëw say soirée. Hmm. dina la yàqal di indil. Hmm. mais dina di nga dem ba benn moment boo xam ne kii même boo génnee lu am it sax luy cartonné sax. pour nga gagné yenn marché yi problème la. non sa public la sa public moo la yàqal parce que ñemewu ñu la dugal si yenn hôtel yi ñemewu ñu la dugal si yenn si yenn endroit yi. mais mais nag dafa bëri ay artistes yoo xam ne tamit dañoo faible ci kanamu public. waaw ah, xam lu tax waay. yow tey da ngay nga dem ci sëriñ yi dem ci ruq yi topp promo bi def événement bi nice ma jour ji. waay da ngay toog de ñaan yàlla mu fees dell. mais fees dell boobu noonu yow xalaatoo ci sax ay nit ñu correct xalaatoo ci ay nit ñu yiw. xalaatoo ci ay ay garmi yoo xamante ni suñu ñëwee dinañ la mën a teral te dinañ mën a jaay sa tur ba mu yegg fenn fi mais yow yow yow am daal public yow yow na gis daal ay nit pour way gisa gisa lu gën a lu gën a neex xam la moo gën a neex mhm. booy am deux personnes di soox di defar di defar ba yàlla di la di la may loolu bul bul basé wu ñu gars yi dafa war a ñëw fees yow del tabax. gisa gisoo Momo Dieng kaa ma. non xam nga Momo bu muy. Momo Dieng bu muy démarré. ma fi ma fekk Momo Dieng mu ngi doon jouer première partie ndeer di gàddu gitaaram di ga di ànd ak beneen di bu xees. Mhm. Momo Dieng di gàddu gitaaram di dem di jouer di am di dem di jouer première partie di dem village village Cristal mhm. di fa jouer. Mhm. di am ay cinq personnes six personnes sept personnes. fo gë gëmul ni dafa war a fees par force de parce que mu ngi doon soox di dem di ñëw di dem di di jouer di dem di commencé di am public bu public bu mature. c'est boo demee ba am public bu mature moo lay mën a may yenn yenn yenn bunt yu bëri nit danga war a garder sa carrière. Hmm. waaw. ak sa image. Hmm. mais. artistes yi nañu yenn yi yu bëgg a dem bëgg a gañe yenn marché yi nañu bàyyi xel seen public seen public nañu civilisé mu nga dem seen mu nga dem di feesal nii di kii nii public bi dafa am dafa am fu mu nit da nga war a ñaan yàlla bul nekk sax artiste ci koñ nit da war a ñaan yàlla nga nekk artiste senegal te ji Casamance soxla la Casamance soxla la nga dem ji Kolda soxla nga dem jouer ji. Tamba Tamba soxla la nga dem jouer ji. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu artiste dafa war a ñaan yàlla loolu. léegi yow sa commune am na fi ñaari booy yu fi yeewoo. waay man nag maa ngi foyoo maa ngi for ci wewu bay ñaari booy. waay ñu ngi def. waaw ñoom daal ñoom ñu ngi yëngal. sa ñaari ah ñu ngi góorgóorlu. mais tey lan nga leen di conseil ci wàllu public boobu ngay wax yow. non man moom du ma ci saa bu ma gisee ñaari nit wala ñetti nit. chaque fois dinaa euh, dinaa wax ci ci seen musique sax. benn boobu temps bi daf na daf na daf na single. non mu ngi nice. single bi tamit nice. balaa ngay ñëw nii moom laa doon seetaan. avant muy avant muy jouer five fii la répété. Ah, avant muy dem five. avant muy dem fii la répété. beneen booy bi fii lay fii lay liggéey. ok mais ñu ngi góor góorgóorlu parce que ñu ngi teg ñu ngi teg ñu ngi def effort parce que ay xale lañu. Hmm. te musique dafa metti mais loolu seen wàllu seen wàllu seen. non man ak service nga xam ne yow yaa leen ci jiitu. man toujours li ma leen di conseil daal toujours. Mhm. nañ defar seen image di wax ak seen i public. chaque fois ni ñuy wax seen public ñu defar seen image man loolu rek laa am lu may conseil lu mu leen conseil mais ñu ngi góorgóorlu parce que ay xale lañu ay xale yoo xam ne ñu ngi teg ay jéego parce que am na ñu leen magoon fop defuñu ko fi yoon. fii ci Grand Yoff waaw. dib mhm. dib fa la dëkk dib doomu Grand Yoff la de. doomu Grand Yoff la. est-ce gisoo ko. waaw doomu Grand Yoff de. te ci xolu Grand Yoff dëkk biir biir digg Grand Yoff dëkk. si digg ñànkatang bi. <laughs> waaw dib dafa am lu mu comprendre moo tax xam naa mu demee mais gars yi dinañ ko mere mais dafa am lu mu comprendre moo tax mu xaw a mu xaw mu xaw xii waaw parce que Dip dafa am lu mu comprendre Dip doomu Grand Yoff la kenn gën koo nekk doomu Grand Yoff hmm. mais dafa am lu mu bëgg mais gars yi duñ ko gaaw a comprendre ci loolu. loolu mu xaw a écarté wu. xaw a écarté wu te Dip doomu Grand Yoff pire la mais. ni doo génne ci ci nëmm woon yi. Grand Yoff daa teel comprendre. ci ci côté woykat yi tëggkat yi maanaam ñi fi nekk ay ndaanaan quoi ci wàllu musique bi. parce que fii parce que pour ñu xam ne ñooñu ñëpp ñoom tamit grand lañ dëkk. su ma jumal am na fi kora kora korakat bu mag bu fi dëkk waaw fii non Numukunda mi ngi fii. Numukunda Numukunda ñëpp xam nañ ko. mooy mooy mooy El nu El Hadj Numukunda. papay mu ngi fii amul amul ku mu jéelu ci àdduna bi. amul ku mu jéelu fii. donc waxuma la Omar Pène kese muy Youssou Ndour ak Baaba Maal ak Thione Seck amul ku mu jéelul ku mu jéelul. waaw noonu kon Grand Yoff lañ dëkk. fii Grand Yoff lañ dëkk. bi muy def production euh, album bi fii la liggéey. Wally bu ñuy def euh, sëñ Abdou Karim bi bu ñu koy tëggaat Numukunda moo jiyee kooraay fii. vidéo yi yor naa ko fii nii moo ci ci jiwaat fii nii. non Grand Yoff na lépp. am na lu ne leen leen rek la ñu a def mooy ñuy yar seeni public pour gars yi ñeme leen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey jii doomu grand war na jóge fii dem Tamba jouer si stade Tamba bi. doomu grand war jóge fii dem jouer stade Guédiawaye. parce que loolu dafa war a mën a nekk war jóge fii dem stade Guédiawaye jouer fa. fii war a jóge dem stade Pikine taxaw biir stade Pikine jouer fa kon ni ko yeneen artistes yi di defee. ok mu mel ni eh, émission bi yegg si nañ ci cappaandaw bi parce que jeex na parce que dépassé nañ sax euh, minutes yi ñu amoon parce que waxtaan bee neex waxtaan bi moo ñu moo ñu yóbbaale parce que ku ne xam na ne li Europe ñaanaan li duuf ci nag bi ayu ci cin bi parce que tamit li ñu waroon a waxtaanee lépp sax mënuñ ko euh, faram-fàccee ci benn euh, émission parce que du ci xaj ba tax na dañ koy dagg jëm ko yemale fii beneen yoon ñi ñëwaat fi defaat fi beneen yeneen am na ay xale yu fi nekk nii di jàng musique boo ñëwee di nga xam am na ñu am na ñuy jàng musique fii. fii nii ci studio boo fi ñëwee. waaw di nga gis ay xale yu ndaw di jouer lu mag dul jouer ay xale yu ci musique laa boo fi ñëwee. ci ban façon musique boo xalaat musique boo xalaat muy jazz muy lépp muy mbalax muy tu te ay doomu grand ay ay ay xale yu ndaw la ay doomu géwel lañu. te Grand Yoff fii lañ dëkk fii nii ay xale yu ndaw xale yu am 11 ans yu am 12 ans. nañ leen bàyyi xel waa réew mi. ay euh, nañ leen bàyyi xel. dañu dañu dañu tàllal suñuy loxo. waay autorités dëkk Grand Yoff. waay ñoom tamit dañuy jàppale seen i seen i dëkk Grand Yoff nañuy jàppale seen i seen i seen doom. waay Grand Yoff am na lu ne am na ay mbër am na ay footballeur. waay na am na ay woykat am na ay tëggkat am na lu ne mais problème bi mooy. ndimbal beeg yërmande bi moom lañ xaw a manqué. te loolu ñu nekk di jooy. waay euh, léegi nag kontaan nañu lool. waay euh, ci ñëw fii seet si la. waay kontaan naa man maa leen gën a kontaan. Euh, man maa leen gën a kontaan man nga xam ne tàmm moo wax <laughs> liggéey laa tàmm. bañ naa ba bañ naa ko sama photo sax bugguma sax muy dem. ba ba ba tey may sama image di génn. parce que du ma du ma gan ci affaire bi yàgg naa si trop. yàgg naa si trop. ndaw ba léegi maa ngi si. Mhm. dama see mës dama nekk. Mhm. waaw mhm. parce que musique moom dama ko yàgg bëgg. waaw dama bëgg nag nekk si nag nekk si ay ñi liggéey ay ndaanaan yu yu mag si musique waaw. si. moo tax ñu nga tàggatoo euh, wax yow ñu ngay sant gërëm. Eh, instant ñëpp. Mm-hmm. waaw di gërëm euh, di la gërëm gra euh, Dakar TV mm-hmm. maa ngi leen gërëm. may ngeen ma tey waxloo ngeen ma <laughs> xaw ma nag li ma wax baax na wala baaxul parce que tàmm ma tàmm ma wax. liggéey naa tàmm. moom moom ma wax nag mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñoom ñoo war a wax. mais kon tey dañ maa dañ maa tànc si miir bi foog ma wax moo tax ma wax. Mhm. waaw parce que ma bokk si musique tamit yàgg si liggéey si nag liggéey si liggéey naa si lu bëri nag waaw da kontaan si yow trop. Mhm. parce que li ma defal nii mhm. euh, dafa rëy parce que dama reconnaître parce yàgg nga ma gis. ma nekk si. nga nga ma non foog moo foog moo wax. looloo moo wax loolu nii nag maa gërëm naa leen ñëpp sant naa leen nag waaye. mais boo fi ñëwaatee di ngeen fi fekk ay xale yu ndaw. yuy liggéey parce que ñoom dañuy liggéey matin soir. incha allah waaw. incha allah waaw suñu mbokki internet Dakar Midi TV tey ndaanaan bi lañ leen amaloon ñu doon waxtaan moom ci wàllu suñu musique bi parce que kon xam na ne musique bi dafa dafa dafa jaxasoo léegi loolu moo waroon ñu def émission bu bees bi tuddee ko tribunalu aar bi tribunalu aar bi nag amul lu ñuy tiit amul lu ñuy ragal. lu baax rek moo ñu tax a jóg ak defar musique bi critique yi mënul ñàkk def ay son yu baaxul di woy ay woy yu baaxul di fecc-fecc mu baaxul di tëgg-tëgg mu baaxul yéen ñëpp dinañ leen seesi te dinañu waxtaan ak yéen mag ñi fi nekk maestro yi fi nekk di suñuy papa di suñuy tonto ñoom ñëpp ku ci nekk dinañ sol suñuy daal seesi la waxtaan ak yow ci wàllu musique bi parce que ñi fekkee démb ñoo mën a waxtaan yi ñi bëgg defar lépp mu jaar yoon parce que ba ci bi tamit waaw dañ ci war a waxtaan parce que dañ ci war a wax lu bari parce que léegi guddi toll nii bëri na daal loo xamante ni mu ngi yàqu ci soirée yi euh, te wàllu public bi moo ko waral te daanul demee noonu kon nekk na loo xamante ni ubbi na ñëpp suñuy buntu képp ko am lu la métti ci musique bi nga bëgg mu defaru ah soo ñu woowee ñun dinañ def déplacement dérangement ñëw seet si la waxtaan ak yow dafa yor émission bi tey nag ñoo ngi woon fii Grand Yoff xam naa naa bi ci topp moom dinañ seeti El Hadj El suñu suñu papa suñu tonton. papa yi Ndeye Ndiaye mu nekk kora kër bu mag ci réew mi ak ci bitim réew après dinañ ko seet si bu soobee suñu borom dafa mu benn émission waxtaan ak yéen ci lu jëm ci suñu wàllu musique parce que nii dañoo bëgg rek yëf yi baax kontaan nañu sama cameraman bi Thierno borom Medina jine cameraman yi loo camera bu baaxul mais suñu deesee tamit fàttewuñ la ñu ngi lay nuyu di la bégee bu baax a baax Seydina Ousmane Moussa mi bég nañu kontaan nañu suñu xol sedd na waaw dañ leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi jaa ngeen jëf merci lu caaw